salaamaaleykum ami Cheikh nous le Dakar 220 ans. ans. Adjam, wow, tout le monde sait que taille le dimanche dimanche tey nekk na benn fête boo xam ne dafa spécial tey Sénégal moo nar a benn final boo xamante ne nii ci diggante moom la ak Égypte tey nag dañoo bëgg découvrir gars naka la ñuy match bi ak aussi lan la gis ak Sénégal tey dina gañam du gañe dañuy xool seen réaction fii lay xewee ci biir la Dakar waa 221 Sitou Siti baayu Siti umpaañu Siti ma woon ci kaw sant doom seen xarit seen artiste Weuz Comédien maa ngi tey ci sama biir koñ fils yox la ñu dem naka waari waaye taw feex kontaan alors dafa mel ni ambiance bi commencé na te dara xewagul la commencé na fii ndax dañu war a sàcc def ay mbax lu ndaw si kon dañu yëngal fi barki sëñ Bamba moom toog yow bul tapet mais an lan moo tax joxoolal ma information boobu yow seek démb da nga am foo demoon daw laaxu léegi ñu la woon coup de fil daa am looy def moo tax dégguñu la gaayen Ah, kon donc ci kanam da ngeen yëngal mooy yow bul tapet loolu léegi-léegi ma defi puso mu dul réer mais gis match bi match bi lu garaaw barki Serigne Touba José rek def ambiance hmm. Sénégal ñëw ñu def lu saf def ko mbax attends euh, score bi ñaata nga gis yow score bi lu ma gis tey nii gis naa cent de cent bii cent waaw dina la may def Sadio rek Sadio bu dugalee quatre-vingt yi gars yi mën nañ dugale si des Sadio Mané tey <laughs> ñaata bii la fas yéene dugal man gis naa Sadio de yow li ngay wax ni amul non loolu def Sadio rek fi mu ne na gisoo Sadio bu sifflé ba may la bii nga xam ne double bi la gaayam doom yaay ah, tout d'abord tey lan nga gis ci match bi waaw ah, match bi essant yi moom ndam may xeeñ quoi barke sëñ Bamba ndam a ngi lay xeeñ waaw am nañ confiance trop si suñu si suñu joueurs yi quoi barke sëñ ok tey boo doon euh, lancer message Aliou Cissé loo wax Aliou ah comme d'habitude rek comme ni mu fa comme ni mu ko doon defee woon na woon fa woon rek waaw ndox du bàyyi yoonam mu ñëw rek gañal ñu match bi loolu rek lañ 3 ñatti 3 1 rek mais gaay ñu ngi naan 2 de non ñatti 3 1 la soxla non nañ jox lépp Sadio Sadio rek Sadio waaw parce que Sadio dafa nekk ci xëccoo quoi xam naa sax mënu leen dab mais nañ jox Sadio rek billahi wala mais nga yaakaar dina yomb parce que moom ak Salah la non mooy yow Salah du dërëm barki sëñ Bamba Salah du dërëm Salah wala laa xay waa la laay ñaan kii Salou Ciss mu defal ko comme ni ko Ramos defoon rek avant dara mu wekkil ma mbagg bi tel ko génne terrain tegal ma nële loo gis que ni Sénégal tey moom la war indi pour gagner score non tey ndam rek tey ndam rek la ñuy am incha allah. score bi yow. score bi ah 3-1 rek comme dab rek. mais attends man gars yi ñu ngi naan gars yi ñu ngi naan 2 ñu naan 1 yow nga joxe ay 3 ay 40. non 3 bi mooy gën a leer xam nga 3 bi doo am lay doo ne 2 bi dañu koo sàccal wala 3 mooy gën a leer quoi waaye ñu dóor leen 3 rek. tey boo doon boo doon boo doon joxe ay but euh, ci équipe nationale kan nga yaakaar ne tey dina dugal. non Bamba Dieng moom xalaat naa ne day dugal tey incha allah. Bamba Dieng Bamba Dieng moom dina dugal bu neexee yàlla. Sadio Mané. ak Sadio Mané tamit moom gaynde la quoi bu dugalul sax dina def passe décisive waaw moom yaa ko bañkat la incha allah bu neexee yàlla dañ bàyyi lépp si loxoy yàlla rek mm. yaa ma gën a xam. kon jeex na mu ngi noonu c'est alors dañuy gën a avancer nee leen tey euh, leneen ngeen gis maa ngi ci suma koñ waaye nee naa leen euh, koñ bi ci kanam tour dina am lu ngeen fi gis lo xamanteni ni ça sera spécial gaay dañu dañuy yëngal euh, fi mu toll ni affaire yi neexna ba nopi affaire yi neexna na nopi parce que koñ bo dem gaay ñu ngi décorer ñu ngi naysal en tout cas dal ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mom mi nga xamne mom dam mo am dam yalla nañu suñu borom bi euh, may ndam ci daraja sayidina muhammad parce que peuple bi namono lool hein ah. peuple bi soxna nga parce que tamit Sénégal musul jël coupe d'Afrique donc bu ko jëlé pour une première fois fay nekk da fay nekk mbégte go xamanteni ni dafai fay zayé ci bir peuple bi nena len euh Sénégal di gagner ba jël coupe dafay boole ay nit parce que tamit dañuy seetlu souvent euh, am na ci yenn gaale yoo xam ne ñenn ñu duñ wax koñ yoo xam ne ñenn ñu duñ wax alors victoire du Sénégal rek mooy permettre de jii nii jàmm jooju am victoire du Sénégal mooy permettre de jii nit ñi bëggante gën a soppante parce que da ngay seetlu benn affaire bu Sénégal gagné ñoo xam ne daawuñu wax sax dañuy wax kottante bi fii ambiance en tout cas ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala coupe d'Afrique des nations dugg fii ci Sénégal pour une première fois en tout cas fii ci Rufisque mu ngi tàmbalee neex mu ngi tàmbalee cool gars yi ñu ngi zonge ñu ngi ambiance di def lépp lépp rek pour jox lépp l'équipe bi en tout cas c'est cool quoi c'est beau c'est beau c'est beau. donc au Sénégal du jeunes rek koy supporter mais sunu papa yeeg sunu yaay ñepp a ngi alors mon papa. Euh, sam papa mon père yeb ben la alors comment ça va ça va bien. alors papa tey noo gisee euh, Sénégal euh, qualifié waat pour une euh, troisième fois finale aussi tout le monde sait que 2002 Sénégal a marqué woon na empruntam ci ci Coupe d'Afrique des Nations marqué woon na empruntam ci mondial bi ah, tey lan ngay ñaax sunu gaynde yi aussi boo leen doon wax lan nga leen di wax bu ko defee ñu fàttaliku tuuti ci 2002 pour mën a ñafe jël finale. waaw suñu gaynde yi jeu bi ne match bi ne yomb ju mais mais Aliou Cissé su baaxoon day jël Ismaïla Sarr. tekk deuxième euh, mi-temps léegi mu dugal ah, ah mu dugal Bamba Dieng ah, ah, ak Mané ne mais encore cela nañ koy marqué euh, gauche bi buñ ko marqué droite bi na cela comme te gauche la hmm? nañuy marqué gauche bi ba bay marqué droite bi kon Sénégal ne ko dóor 3-1 ba soobee yàlla Le Sénégal dina gagner 3-1. Sénégal dina ko 3-1. Inshallah. Inshallah. alors sans plus tarder gis nga nee naa leen euh, Sénégal euh, génération ñi nga xamante ne ni ñoo fa le jaar ñëpp surtout euh, gars yi di 2002 moom ci la bokk 2002 marqué na bu baax a baax alors papa maa ngi lay jaar. maa ngi lay doon jaar. alors papa nous nu gisee Sénégal qualifié waat pour une troisième fois finale. Inshallah, allah bu soobee yàlla ak yonent ba lépp dina baax bu soobee yàlla ci kattanu yàlla ak yonent ba na ñaan bokk ñaan rek. bu ñu ñaanee incha allah yàlla dana def jàmm ndax Sénégal jàmm rek moo fa fi mu nekk nii ñun ñëpp ñu ngi ci gannaaw Lions yi yàlla yàlla defal jàmm defal ko mbooloo mi julli bokk yi ak yéen waaw léegi nag di leen doole ziar waaw di ñaan yàlla lépp la loo xam ni desoon nañ ko suñu xol yàlla ñu ko yàlla ci jàmm ak salaam bu fekkee ni victoire moo gën ci ñun yàlla na ko yàlla def ci def waaw yàlla def bi jaay waaw ñu ñaan yàlla ñun ñëpp rek. incha allah yàlla may ñu ndam ci kat ndam lu sedd guy waaw ndam lu sedd guy kenn bañ ko eh, wute incha allah jërëjëf. ñu feetoo ko si jàmm ak salaam. lan nga lan nga wax ci équipe nationale bu Sénégal. nationale ba li mu si bëgg wax mooy nu mel nii baax na trop fu mu nekk luy suñu devoir mooy ñu tax ñun ñëpp ñu toog ñaan yàlla may ñu ndam coupe bi ñëw moom la ñuy ñaan yàlla kenn ku nekk daal fi nga toog na nga toog def say ñaan sport la nag waaw meilleur yi Ah, sport la buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko yombal loolu trop ndax équipe lañ daje ndax 86 Sénégal dóor na 1-0 dëkkam 86 Sénégal ko fekk dëkkam dóor ko 1-0 yaa ngi dégg kon nag lii match bi xam ne match bi am importance la si ñun waaw ñun ñii buñ ko caaxaane buñ ko fooye waaw ku nekk daal li may ñaan mooy ku nekk na nga toog sa kër ñaan yàlla yàlla indi ñu ko bi si jàmm ak salaam da match bi gëm naa ni moom incha allah si kattanu yàlla 2-1 la. si kattanu yàlla. mais man li ma ci wax moom islam toon Ousseynou mooy kontaan rek barke Serigne Bamba ndax gaynde moom Baye sigil nañu sigil nga nga xamante ne sii ñun mënuñoo comprendre lan la ndax en 2002 Pierre wax na ko léegi 86. gars yi béggoon nañ ñu ñëw 2000 2002 ñoom El Hadj ñoom Khalilou Fadiga ñoom Tony Silva xam nga sama gars fa nekkoon 2019 dem nañ final yàlla def ñu ñàkk bi baa nag bi may suñ troisième final ñu ñi ngi ñaan yàlla nag ñu jël ko bi barke baam ba nga gars yi dañoo baax sax ñu naan ay 2-1 ñu naan 2-0 ñu naan ay 3 mais man 3 bi dama si yokk benn muy 4 te bii nag joxe naa ko ba pare da Sadji day dugal benn saareen bi seen avion day dugal benn mi ñaari 2 gana jox naa ko benn mais nag sélectionneur bi Aliou Cissé may naa xam benn quoi coaching gagnant muy 4 dégg nga barki Serigne Bamba Ousseynou ya yàlla nga yàlla jàppale te may ñu ndam ayca gis ngeen kii taxaw nii supporter number one bu senegal moom nee senegal bu jëlee coupe bi day maye yàpp gratuite Ndiaga yaa ko wax waaw loolu leer na loolu wóor na alors alors euh, naka nga euh, final coupe d' Afrique bi nga xam ne Sénégal qualifié na Woi pour une troisième fois oui onze billah bismillah ina wala la wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba waaw ñun tey dañoo waaj final bi waajee ko nuñ ko mos a waaw pare fépp parce que Serigne Touba mel ni suñu yëfi bopp la waaw di ñaan nag fu mu toll mag ñu baax ñu fi ne ñëpp ñu ñaana ñu ñu am ndam ndax équipe bi suñu équipe bu bopp te it boobu ba léegi ba ñu juddoo ñu ngi koy séntu mosuñu ko am ñu jàpp tey moom mooy mooy suñu sens xam naa ne bu ñu bu loo xam ne nii sax war nañ ci waaye xam na ne àdduna bi yëpp ñu lañ faral waaw di ñaan saa nag dafa ñu ndam bu baax a baax ñu ñaan nag suñu borom rus ñu bu baax baax indi ñu ndam li soobee ndax yite woon na ko barke Serigne Touba ñun moom yitewoo nañ ko lool lool lool di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal mag ñi buñ jullee ñëpp ñu ñaanal suñu équipe bi ndam waaw ndax soxla nañ ko barke Serigne Touba. ok lan ngay wax euh, tey euh, suñu joueurs yi ak Aliou Cissé ak score bi tey ñaata la. waaw ma mën ko euh, wax ci lu ndaw ndax suñu borom mooy maye waaye dañ jàpp ne Aliou Cissé ñaari match yi ñu paase nii ndax félicité nañ ko ndax juumul def na lu baax te def na li nga xam ne moom lañ doon xaar ci moom di waxaat ne nag suñu Lions yi. Euh, njaw des na xam waaw ndax euh, liñ daan def buñ koy yokkee tey am ndam waaw di ñaanal nag ñëpp jour yëpp wér ak jàmm ju mat a mat waaw ndax fu mu toll ñu koy séntu ñoom ndax ñun bëgg nañ ko te ñoom ñoo ñu ko gën a bëgg di leen ñaanal wasalaam yàlla na yàlla may ndam bu baax a baax wasalaam. alors papa euh, noo gisee actuellement Sénégal final bi mu fas yéene jonganteel ci diggante moom ak Égypte ak lan ngay wax suñu Lions yi. waaw hmm. ah, bi ñu war a dafa une suite logique parce que depuis des années à Aliou Cissé entraîneur ak joueurs yi m'a sélectionné nous ngi sur une pente Bon xam depuis hier, de mon finale 2019, mille que neuf nekk ci coupe du monde que ci euh, barrage pour dem coupe du monde am joueurs yoo xam ne dans les plus grands clubs du monde d'Europe Quand c'est logique que ñu dem finale bon. li ci dess nak moy sport la finalement moom fa xasse ba egg comme niñ koy waxe rek entraîneur bi def na rôle am li ci dess jour yi la ñoy pour dugg dans l'histoire ñom ñoy euh, ñafé surpassé wu def ko nawétane gagné li ci dess nak dafa am facteur chance bo ñu comprendre aussi que compétition la da ngay gagné wala ñu gagné la mais nañ def sen xel rek ni ñom ñoy gagné def tous les efforts du monde gis nga Cameroun dembo wane na ci dëkkam ñu door ko 3-0. waaye pour dëkkam mu xam ne bu génnee xamul nu mu ciy génnee jours yi ñoo surpassé wu. waaw donc euh, di leen ñaanal yal leen yàlla may ñu am ndam ndam bu sedd parce que mérité nañ ko mm, toll nañ ci tamit j'espère que dinañ gañ a tam waaw incha allah. maa ngi lay alors tey nan nga gisee euh, Sénégal qualifié pour une troisième fois ci compétition bu toll ni Coupe d'Afrique des Nations. Mm. waaw xanaa ñu dellu sant yàlla rek di wax ni football la mais football dafa am dafa am boo xam ne boo fa tolloo da nga ciy def beaucoup de rigueur muy phase finale te xam naa ne incha allah li ñu am ci ay joueurs bu fekkente ne prudent nañ dal tuuti rek yàlla mën na am ñu jël euh, ñu jël coupe te comme que ñu boobu léegi ñu ngi daw ci ginnaaw euh, Coupe d'Afrique bii ñu nekk nii daal nañ Sénégal yëpp booloo. xool yi nekk benn ñu xam ni Sénégal kese te ñun ñoo ko bokk ñu ñaan yàlla sunu borom moom mi maye ndam moom may ñu ndam ba sunu équipe nationale bi jël coupe te mu ànd ak ndam lu sedd guy te ñu tal ko te fekk ka li ma leen di wax daal mooy dañuy def attention parce que naar yi dañoo garaw football waaw dañoo garaaw football ay tricheur lañu dañu mën a tricher donc fokk ñu prudent ci ñoom. sinon rek mën nañu ndax piéger ñu waaw parce que seen jeu du jeu bu normal daal ñoom ni ñuy doxalee baaxul ah yaakaar naa ko de ndax xam naa ni ñu footballee l'autre jour contre Burkina Faso moom. buñ ko footballee moom. kenn mënu ñëw dóor. waaw prudence rek. waaw prudence rigueur. man daal loolu gis. kon ñu ngi seen coupe bi dugg fi tey. incha allah yàlla nañ yàlla ni nga ko waxee nii yàlla na fi dugg. loolu rek loolu rek ñaan. yàlla nañu yàlla may ndam. vraiment soxla nañ ko trop yàlla nag moo yor ndam waaye nag ñun comme que moom dafa nañ dañ ko ñaan mu mu may ñu ñu ngi koy ñaan ñun waa Sénégal gépp ak fépp Sénégal a nekk rek ñu ngi koy ñaan nañ ñaan yàlla mu may ñu ndam coupe bi ñëw Sénégal waaw yàlla nañ ko yàlla defal. ayca boo déggee ñu naan supporter number one kii la góor a mais góor a mu demee nii. mais lii dañu yeewu rek xam ne nii lañ mën a demee ñu demee nii xam nga ñëw taxaw suñu tali bii nii di jëngu ngir gaal seen gañe xam nga rek mooy loolu noonu. xam ñun moom Sénégal la ñam 2002 ba léegi ñu topp di daw bàyyi ñu gis dara tey jii nii yàlla lenn rek la ñu war a mën a defal quoi may ñu ndam quoi barke Serigne Touba Mbacke. ñoo war a may ndam nag. man dañ sonn dañ sonn bilaay walaay taalaay fii boo xoolee boo xoolee ñun ak naar ñun tey ñun ñun ñu luñ naxari naar naar ñu ko teg mais tey lu ñu war a neex si naar dañ ko war a jëlee quoi barke maam Serap Fall tey buñ gañewul nii da nga gisul ne mais nag buñ dóoree Adamo day simeeku mënul simeeku. parki borom Touba bu ñu dóoree moo xam ne booy ay 30 aadama moom fi ay 1000. lu gar kon da ngay subi set. Gora <laughs> kaay may ma ambiance ngir yàlla may ma ambiance lan nga wax. loo teggin caj. kigin caj. bu la neex. ku tegut ku rëgg jaa cër. doo taj. sama gars yi naka ngeen di waajalee finalu Sénégal. waaw mais comme dab rek waajal yi mooy xam nga rek dem jël li nga xam ne moom moom lañ moom lañ moom. waaw ñëw indi ko fii quoi Galsen quoi parce que loolu loolu la gars yi namm quoi li gars yi namm mooy coupe bi quoi xam nga rek di ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla jox si kàttanam quoi waaw moo tax xam nga rek gars yi def nii yëngal pour xam nga rek koñ bi sax au moins am benn kii quoi boo xamante ni gars yi. mais je pense actuellement drapeau version douce desatul si dëkk bi. non desatul même mooy sax dañ ko doon wër mais dañ ko amul. looloo tax gars yi dem di di cote si affaire yi nii. yaa koy ñëw. mais attends pourquoi gisuma ngeen décorer fii takki drapeau comme xam nga yeneen secteurs yi. mais si lañ nekk nii instant bi ñu toll nii. drapeau yi pour loolu la. pour loolu la pour koñ bi yëngal koñ bi xam nga rek. mooy loolu kon tey bu Sénégal jëlee coupe bi fii dina mel ni dóom de. non waxuma lakk lay niroon lakk dañuy lakk koñ bi loolu moom biti la fa moom waaw. nga ko. Euh, tey euh, lan ngay wax euh, sunu gaynde yi parce que tamit actuellement ñëpp a ngi naan Liverpool mooy football Sadio Mané Salah. Mhm. non man moom li may wax mooy que ni gars yi comme que liggéey nañu ba egsi fii li si li si des moom nekk nekkatul loo xamante ni dafa même kii dafa métti quoi naka gars yi dem gérer rek jël ko indi ko <laughs> waaw bul wax dara. waaw loolu la dañuy. tey score bi ñaata score bi 3-1 la. 3-1 waaw. ok kon ñëpp ngi naan 3 alors yow score bi ñaata la. 2-0 2-0. 2 premier mi premier mi-temps 2. bi benn waaw deuxième. mu mu nekk 3-1. mais attends yéen bu yéen Sénégal dina teg le 3 match yëpp di gagné 3. mooy noonu. Ismaïla Sarr 1. nga. Sadio Mané 2 Ismaïla ambiance la. alors donc voilà donc euh, ça ça tire à fin. en tout cas actuellement nous pouvons gis ces beaux images là Nous pouvons gis image yu nice nga xam actuellement Sénégal actuellement nous pouvons xaar ndam li pouvons a koy en tout cas c'est un immense plaisir le Dundulo dundaloo du match Sénégal bi nga xamante ne ni euh, moom ak Égypte une troisième fois pour Sénégal di le football euh, final. ñu seetlu euh, deux fois yëpp ko mais cette fois ci dañ bëgg coupe cette fois ci dañ bëgg gagner en tout cas ñëpp a ngi en tout cas na gars yi parce que tamit il fait temps il est temps dafa jot Sénégal jël Coupe d'Afrique des Nations pour une première fois ay Sénégal jëlee en tout cas là, là, là. c'était un immense plaisir ki nekkoon ci caméra bi Pape Mor alias Pek waaye ki leen doon ko présenté di seen doom di seen xarit di seen artiste Weuss comédien from Rufisque fii laa Ça sama koñ en tout cas di leen jox rendez-vous dig dans quelques heures c'est dans quelques heures Sénégal la Coupe d'Afrique des Nations ñu songé bye